nga xam ne mooy xaytam mooy doomu ndeyam mu nekk kii di délégué Amar ñaar ñoo ngi lay nuyu. leen di fay si internet yi di fay mes amis loob mes amis de snap. Mm-hmm. alors tey nga ñëw tey rek nga xam ne mooy sa xarit doomu. waaw tey sunu xarit di kenn ci wàllu sek moo doon fas soxna nag di takkee fële ca États-Unis ñu naan United States of America ñu koy ñaanal bu barkeel yàlla yala barkeel sëy bi yàlla yàlla boole seen i jikko boole seen wërsëg may leen jabar bu barkeel barke alors wax mooy ay témoignages ngay def si moom ak conseil bi nga xam ne moom nga koy jox peut-être si célibataire mais c'est pas grave. waaw man nag célibataire laa nag waaye célibataire nag bu xam lu baax la nag célibataire bëgg lu baax nag boobu léegi maa ngi casting mais casting bi léegi mu jeex nag incha allah ndax xewu ah, tàngoor dafa metti <laughs> ma bàyyi ba seddaay bi rek takk jabar benn yoon incha allah conseil xam nga nag célibataire mën a conseillé marié te man damay bañ a waane lu ma maîtriser lu ma ci bëgg a wax mais daal yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla barkeel sëy bi yàlla sëy sëy bi doon ci sëy yéen taamu ci aras li mu njëkk a constaté ci xew yi nag damaa ñëw dégg dégg dégg son yu euh, son Sidi Diop ci baas bi nag man ay waaye alhamdulilahi rabi alamin délégué maa takk jabar son Sidi Diop ne ci baas ba yàlla na jàmm yàgg non maanaam noo xam ni musique c'est la musique qui gagne c'est le Sénégal qui gagne c'est l'Afrique qui gagne tey Sidi Diop bu xewlee lu toll ni Zénith de Paris war ko def fële ca la Villette le 29 juin ñu ñun ñëpp dañ ko war a xar suñu tànk tubéy xam ne bu amee ndam ñoo am ndam bu amee defet ñoo am defet ñu koy dégg na suñu grand ñu naan ko Matar Diop Subatel liggéey ci liggéey bu doy waat ndax artiste yu bëri Sénégal yi fi dem Zénith ci loxoom lañ jaar yàlla ko yàlla defal jàmm ba Zénith le 29 bi réussir ak jàmm man dinaa ci communiquer dinaa mu toll nii day mel ni euh, mu amu fi xas amu fi supporter rek ñooy ruube ak waa tribune découverte ah, waaye xaaral moo la rek man xaw ma man man sama bopp laa xam man xaw ma keneen bu ngeen laaj keneen ngeen laaj keneen question man mii laaj question mosuma xuloo woykat mosuma xuloo artiste man taxawaay is bu derxee laa taxawee rek képp ku jiw ak Wally Seck ci kàttan suñu borom ci moom jàmm buñ jiwoo ci kàttan naa la liggéeyal dew ma fenn nag ma woowul fii ma ñëw nii si déléguement daf maa invité moo tax ma ñëw bari xaftaan taxul ma dem gënte bu ñu ma yëgalul fuñ ma wóol du ma fa dem foo gis ma taal sama sanam di fa taal dañu maa fay contrat fay ma xaalis ku bari ma ñëw couvrir ko loolu suma concept la loolu suma philosophe la du question yëg boobu affaire bi gëm-gëm la rek ndax bu ma ñàkkoon fay ci ay anniversaire ngay dem ak ay happy birthday yi doon ak ama président c'est le chemin côté présidentiel yéen ñi yëpp amul kenn ku ci bokk côté côté ay journalistes ngeen diplôme man yoruma diplôme du ceci laa du diplôme du dara ñetti phrase laa war a àdduna muy ay ay forum formaris musique am fu la ma dem Nations Unies jàkkaarloo deux cent cinquante président ci àdduna ñu taxaw cameraman bu dem Nations Unies da nga avion président man téléphone bi ci laa Nations Unies ci laa demee CEDEAO ci laa demee fekkoon na a valoriser gëmal ko fulal ko nit booy saw sal nga a saw balal bi tooy ñu xam ne yow mi sawantu woo man foofu laa ne. mais saa yi dama toog ànd ak président. sa waay man tawaay RTS laa taxawee. Euh, quatre quatre mois ci ci ginnaaw. Sonko ak Diomaye mosuñu génn RTS génn bu leer wala génn fa génn 30 secondes. léegi ñoom ak RTS ñoo bokk ndey ak baay man état laay na man république laay topp topp ma opposant damay liggéey li ma nekk dama focus man je suis pas un yor ma carte APR yor ma carte Pastef yor ma carte beneen parti. mais képp kuy président euh, sunu wërsëg boole ñu dinaa liggéey te yàlla rek tax te xaaruma ci benn nag benn arrière wala benn retour man damay liggéey te yàlla tax rek comme ni ma mel ak Wally Ballago Seck naa ma mel ak gars yi damay liggéey te yàlla tax ak gëm li muy liggéey ak fonk liggéey bi man foofu laa ne. non Sidi déet mosuma ñàkk wax ci Sidi Diop Sidi sama xarit la Sidi Diop la may wecc sam la may jox sama wecc bi ma ko ah, la ma lebal sama jox ma ko ndax fu ma moom may way moom may sigil moom may sagal moom may yëkkati suma xarit la suma rakk la lépp jaar na ci sunu grand ñu naan ko Matar Diop Subatel yàqul dara ci ànd gi boo gisee artiste artiste ma Subatel yëpp fan lañ fekk dama leen di couvrir ndax dama ak lot euh, ak euh, Sonatel Sonatel léeg-léeg ay artistes Subatel ñoo fa ñooy def ñooy def bi prestation bi fan lañ fekk damay damay filmé affaire bi envoyé ko Matar Diop man aw ma xaar yàlla kenn nee naa la man néew ma ci compétition man ci mission laa ne compétir ma ku yàlla bind mais mais mais daaw nga classe gannaaw ba nga demee fële sa. Euh, hmm? bés bi nga xamee ne loolu du classe loolu loolu loolu loolu ay ay raams la du classe. ndax Sidiki Diop dana ba jël sërëbam. nga taxaw ne nga taxaw la ci bi rek man aw ma xaar ma yàlla ku yàlla bindee. non du ay showbiz man néew ma ci showbiz yéen a jàpp ay minimisé ndax yéen a jàpp minimisé yéen a nekk foofu man néew ma foofu yéen ay gars yi rek ñu ji naan gars la presse sénégalaise yéen ay gars amul polémique ndax ñoom ñaar mos ñoo xuloo mos ñoo waxante lu ñagas waa tribune dëgg ñooy kaas rek ak ak ak supporters yi mais Sidi Diop non defante amul showbiz moo demee noonu rek showbiz maanaam Sidi Diop mosul wax lu ñagas Wally Seck Wally Seck mosul wax lu ñagas Sidi Diop mosul gën si ñoom ñaar seen làmmiñ léegi léegi xam loolu yaa ko dégg man dégguma loolu alors alors ña bu sa nee na mooy Sinapooru Wally Seck loolu yëpp du problème man maay Sinapooru Pape Diouf man maay Sinapooru Sidi Diop maay Sinapooru euh, Viviane mais du jënd glace man foofu laa ne man nee la man ne ma ci compétition ci mission laa ne damay missionné rek mm. yàlla ak ma teeloon yàlla ma fu ma bëgg de maa ngi fay dem découvrir di mos dara mais loo bëgg léegi dañ nga ci boole ay xuloo yeneen ak yeneen yàlla da lay sax mais ñi wax naan ñaa mosatul ndax gouvernement bu njëkk ba ñoo ko man sama wërsëg bu dee da ngeen jaakaar ni le avril la wërsëg bi jege ngeen xam kon man gàtt naa wërsëg tey laa gën a maye tey laa gën a mën a baatee tey laa gën a mën a yéeg ci jakarta yi li ma yéegee jakarta noonu laa yéegee avion di ko yéegee ci sa place di ko yéegee ci bus di ko yéegee ci yi man foofu laa ne ah, alors ñaa ñu wax leen li nga xam hmm? ko ne roi ci réew mi mais xalaatam la rek il a plein droit plein droit wax xalaatam Aziz suma xarit la suma kilifa la suma waay la li mu wax xalaatam la rek dama maîtriser ma làmmam man làmm li ma xam mooy Modou Lo mooy sama mbër mooy sama supporter te yàlla def na ko roi des arènes da ngeen di dem ba ci Aziz Ndiaye biroom Zador ngeen laaj ko posé ko question mu tontu leen mais man li ma roi des arènes Modou xarañ loola doomu yaa njóoba ci série Mariama borom inde 22 sama mbër mi ah, yaa ngeen jëf yàlla yàlla defal leen jàmm ah. soxna si day mariage dama fi ni Aziz Ndiaye fi yàlla yàlla defal la jàmm sa létt yi ràpp na nag na nga ko firi waaw non du yu bees la na ko lukkat bisam te nit bisam rek la am ku ko cofal bisam ku ne xeeb nga ko te maanaam man dama ko jàppee du ay waal yi wala dara mais dañ bokk sëñ Tuubaa muy taalibe donc bu amee bis bu mel nii man li ma war mooy ñëw rek taxaw teewe ko xam ni rakk la mbokk la taalibe la lii ma fi indi. waaw nit ku baax la ndax xam naa ku bëgg Waly la ku bëgg Sëñ Tuubaa la donc voilà nit ku baax la loolu rek laa xam ci moom baax. complicité bi parce que dañu mais safoo faale àdduna noonu lay doxe ku la safoo ku ne da koy faale te nit bu lay tiitaroo euh, fu mu toog wax ci yow lu baax. xàmmewul ci yow sa safaan ak sa mbégte kon donc kooku bu xewlee amoo dara loo war a def lu dul rek loo jàpp nga bàyyi ko ñëw teewal ko te xam ni maanaam euh, nit amul lu dul bisam te nit njariñ yéen ñu fi indi. Mm-hmm. dañu gis euh, yéen euh, Faramareen ne bu ngeen xewlee maanaam wala yéen ñi nga xamante ni yéen a a jegewoo dañuy gis ngeen bàyyi seen lépp dem par rapport ak yeneen yi gis nañu ki leen soodee muy Wally Ballago Seck. pardon ñëwaatal toofu ñëwaatal dañu gis faramaare ni par exemple ku ci mel ni Pawlish ba mu xewee ñëwoo leen gisuñu leen ngeen teew mm. ñu gis tey euh, délégué di xewle ngeen ñëw teewal ko lan moo waral tey euh, mm. parce que gis nañu relation bi nga xamante ne amoo ngeen ko seen diggante ak Pawlish non Pawlish relation bi ñu am ak moom dañul tey la gën a yokk mm. mais xam nga parfois euh, tombe dafay waral ay gaaf ndax nit dina dina la jege lool lool lool lool ba nga xam ni kii dalaa jege ci yow la bokk mu xewle fekk la nga nekk ci mbir moo xamante ni bii yow day am lu lay tënk ba doo ca mën a doo ca mën a teew waaye pour man Faramarene bu ci benn jëmm taxawee rek teewal nañ ñëpp ndax benn bopp la gis nga fa ay Faramarene yu bari bu ñenn ñi ñëw